tay maa ngi ci turu euh, Mbaye Gueye, euh, président directeur général bu EMG pour euh, acheminer les dons yi nga xamanteni dimbal gi nga xamanteni mom la def suite à à l'appel du président de la République bi mu lancé à tous les patriotes pour participer ci xex bi ñuy xeex jàngoro ji bi nga xamanteni mo ngi xuus ci biir réew mi actuellement aide bobu mi par exemple ben ambulance euh, bo nga xamante bu bes bu musta daw euh, entièrement euh, accompagné de 5000 masques euh, chirurgicaux comme bi ma ni euh, ak 1000 lots de gel bi nga xamanteni ni def na loolu ba paré daf cey yok ay vivre pour dimbali aussi population bi parce que actuellement ku ci nek am nga impact bo am ci à son à ton niveau donc 50 a 50 tonnes de de riz et 50 tonnes de de sucre donc actuellement nous ngi nekk sur la grande à la grande mosquée de de de Voilà, Fall voilà bi nga pour mettre à disposition les les populations donc lini si vous ko par exemple ñu koy fësal naka jekk a pas lu mu daan fësal ay ay ay ça fait plus de 15 ans que je dimbali au niveau de mérine Nafal avec des familles entières mais euh, comme président bi woot mo woote pour euh ku ci nek participer ak fa nga fa nga toll ak fa nga ne lolu mo motax mu koy fësal pour nit ñi gis ko mën cee jël exemple mëna def la la même chose waye wu defu ko pour puukare wala pour wané wu wala pour euh, leneen mhm. service automobile bi actuellement euh, laal nañu ci secteur automobile bi mbas mi laal nañu ndaxte fi mu nekk ni suñu personnel bi nga xamante mo doon jël transport en commun yépp daleen wax ñu tok seen kër daal di wut ay auto yo nga xamante moy dem jëli personnel bi di leen di leen indi activité bi wañéku na waye téwul daño maintenir euh, salaire yépp ñi nga xamante ni ak ñi nga xamante ñëwuñu pour que ñu participer à notre manière aussi ci ci ci ci effort bi parce que aujourd'hui nit ki waratul xol limi muy gagné mais lan la mëna contribuer pour que euh, affaire bi euh, feebar bi joggé fi ci na mu gëna gaawé di gërëm rek euh, El mbay Mbaye ak doomam bi xam ne tey mooy directeur général entreprise bi ñu ñu doomam bu mel ni ñu loo xam ne soxla woon nañ ko tamit te mu nekk loo xam ne tamit ñoo ko laajte ndax góor gi dafa am benn démarche boo xam ne da ko si dugal boo xam ne neex nañu trop maanaam balaa muy def doomam indi ko gaari ko jox ñu daf ñu ne lan ngeen soxla man bi ma ko waxee dama laajte lan la ngeen gën soxla sëriñ si wax ma lan lañ ngeen a soxla si cette base là effectivement la estimé suñu besoin donc am naa yaakaar ne li mu indi nii tey si ngoonee boo demee si di ko fekk nit ñi di ko utiliser si kër yi wala di ko fekk service di ko utiliser sur le terrain donc déjà loolu vraiment démarche la xam ne wax ne ñu koy salué di yaakaar am yaakaar ne joxe doon xam di nga si mën a roy boo entré en communication ak ñun dañ la wax leen soxla boo ñu ko mu nekk ñu xam ne dina mën a jëriñ immédiatement donc il faut que ku nekk koo xam ne mën nga si dara rek am nga dara am nga loolu mën a dencoon nga mën ko génne suñ ko génnee bu boole ko dinañ am finalement xaalis boo xam ne yaakaaruñ ko woon sax et bu boobaa dinañ mën a xeex jàngoro bi parce que xeex jàngoro bi tamit ay geste la barrière la ñuy wax voilà mais également moyen tamit yuñ siy def yoo xam ne buñ ko utiliser effectivement dañ mën a xeex moom jàngoro bi. li ñuy wax daal nit ñi nag mooy toog leen seen kër koo xam ne amul soxla soxla jàpp la ah toogal sa kër ba lay génn ku si am soxla boo bëgg a génn ni ñu la ko waxee takkal masque bi nga génn au moins ku si bëgg tukki laajul autorisation boo ko amee nga dem soo ko amul nga toog. Mhm. mais nag di dugg si àll bi di dàq loo dàqee policier ak gendarme yi yaakaar naa ne mën na si bañ loolu nag li ñuy recommander nit ñi la mais du tere nag ñu jël suñuy matukaay ñu jël suñuy matukaay pour que sur le terrain fépp fu nit doon jaar ñu mun a fexe ba far faj fatt ko.